إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله قد قرن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة في كتابه الكريم حتى أنها تصل إلى ثمانية وعشرين موضعا قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين والأحاديث في وجوب أداء الزكاة منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة وأجمع المسلمون على وجوبها في جميع الأعصار وقال سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفدة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقد وعد الله وهو الجواد الكريم الذي لا يخلف الميعاد لمن أنفق فقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ay yéen mbokk jullit yi ñu ngi sant sunu boroom subhanahu wa taala di ko ñaan mu musal ñu sunu ay bakkan ak sunu jëf yi ñaaw di seede ne moom dong ma yeyee ñu jaamu ko niñ koy jaamoo dañ ko war a royee ci ki mu yónni woon ci ñun yonentam ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw loolu maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ngalla waay sax leen ci ba dee fekk leen ci bu loolu wéyee xam leen ne sunu boroom subhaanahu wa taala julli gi ñu fas yéene def lënkale na ko ak génne azaka ci place yu bari ci ab téeréem ba loolu yegg na lu ëpp juróom ñaar fukk ak juróom ñett ci yoon yoo xam ne boroom bi day lënkale salaat ak zakat bu dee la muy tudd julli wax ak joxe ëpp na juróom ñetti fukki yoon bokk na ci loolu sunu boroom mu ne man day samay jaam digaluma leen lu dul nañuy taxawal julli di joxe azaka te lii mooy diine bu jub mu lay woñe ne mbokk bépp diine bu amul julli jubul ak fu mu mën a jóge bépp diine bu amul joxe azaka jubul ak fu mu mën a jóge sunu borom yàlla it wax nañu ñan ñooy sunu doomu ndey ci lislaam mu ne day képp ku nangoo tuub nangoo julli nangoo joxe azaka xam leen ne seeni doomu ndey lañu ci diine looloo tax képp ku dul julli amoo droit wax ko sama mbokk jullit koo xamee ni nii da ngay gis na lànk ne na moom azaka du wàllam amoo droit di ko wax sama mbokk jullit suñu delloo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu waxoon ne lislaam dañ koo tabax ci juróomi mbir ba ca jiitu mooy nga seede ne yàlla kenn la muhammad yonent yàlla la ñaareel ba nga nangoo julli ñetteel ba nangoo joxe azaka ñeenteel ba nangoo woor juróomeel ba nangoo at makka loolee moo tax xalifaam bu tedd ba abubakarin sadiq ba yonent bi faatoo am ay giir ci arab yi ñu ne ñun daal yonent bi moo doon dund moom la ñu jox zakat léegi faatu na dootuñu ko joxeeti abubakar dane ku bëgg a teqale diggante julleeg zakat dana xeex ak yow loolee saxaaba yépp ànd ci ak moom loolit moo tax ba mboole mi boromi xam-xam te saxaaba yi ba suñ jamono tey ñoom ñépp dëppoo nañ ci ne farata la ci doomu aadama bi alalam su dee mat na nisaab mu génn ci zakat ñàkk koo def di lu dangereux lool sunu borom mu ne ñi nga xam ne ñi ngi denc or ak xaalis ak lépp luy taxaw palaasam ci sunu jamonoy tey CFA la wala dollar ca duñ ko jël di ko joxe ci yoonu yàlla bégal leen ci mbugal bu tar bu leen di xaar yowmal qiyaama alal ji nga dajale woon yépp yàlla dana ko soppi ay feer malaaka yi tàngal ko ci sawara ba mu xonq cur ñu ñëw di ko paase sa kanam di ko paase sa gannaaw di ko paase say wet ñu ne la lii mooy alal ja nga dencoon joxe woo ko woon ci yoonu yàlla loolee mbokk dañuy gis lu tiitlu la waaye bu ñu delloo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy gis ne daanañuy bégal ci ne li nga xamee ni nii day moom mooy alal xam leen ne sarax du ko wàññi abadan xadis boobu muttafaqun alayhi la alal lañ ci jël saraxe ko ci yàlla tax da koy yokk abadan du ko wàññi sunu borom yàlla moo dige ci lum dige def ko mooy ki tedd ki mën a matal moo ne lépp loo xam ne dépensé ngeen ko man yàlla dinaa leen ko wuutal te yàlla màgg na ci nga koy jox dërëm mu lay jox dërëm amul looy dépense ci yoonu yàlla lu dul yàlla wuutal na loo xam ne moo ko gën ci li nga xam ne moom ngay am loolee nag mbokk jullit heure boo ko déggee da ngay xamee ne lee nga xamee ne nii moom la seytaane di def ca mooy sunu borom mu ne seytaan yaidukum al faqr wa yaamurukum bil fahsha seytaane dana leen digal ngeen doon bu ngeen joxe da ngeen di ñàkk amma bu dee dépense ci lu xaraam mu taaral ko ci yéen amma seen borom yàlla mi ngi leen di dig jéggal leen seeni bakkaar waaye seen borom yàlla mi ngi leen di dig la nga xam ne mooy ay ngëneelam heure boo tibbee ci alal ji joxe yàlla indi lu ko gën nga joxewaat yàlla indi lu ko gën tànka tayyi woo yàlla du tayyi yow yaay lottu ca sunu borom yàlla mu ne sunu la nekk fa moom moom du jeex ba faw looloo tax ba yow mi xellu xamal ne sunu borom mi ngi lay dig aljanna aljanna jooju nag nee na bakkan na ko jëndee ak seen alal inna allaha ashtara min almuminina amwaalahum wa anfusahum bi anna lahum aljanna yàlla jënd na ci jullit ñi seen alal ak seen bakkan ngir ñeen leen aljanna laytaayoo nañu ubbi joxe ba gën a nekk farata te mooy zakat doonte ne sunu jubluwaay nekkul ci fàttali lan mooy zakat waaye sunu jubluwaay mooy nekk ci ne jullit ñi la yàlla dëppalee juróomi yoon nga di ko julli par bis nga la waay xamal ne itamit yàlla gërëm na ci yow sa alal ji nga jël ko di ko teg fu neex yàlla borom bi subhaanahu wa taala di wax ne allazina yunfiquuna amwaalahum billeyli wannahaar sirran wa alaniya ñi nga xam ne seen alal dañ koy joxe guddi ak bëccëg ci lu nit ñi yëg ak lu nit ñi yëgul loolee da ngay gis ne mooy la nga xam ne ca la ñuy jullee looloo tax ba danga bokk doon ko am war a génn zakat nga la waay bul yem ca zakat ba kese zakat at ba at la waaye it bu dee ne amuloo xamal ne sunu borom subhanahu wa taala ubbil nañu buntu tàbbal ñu ci ngërëmam ca la gën a néew ci am am yonent bi alayhi salaam mu ne sabaqa dirhamun miata miata alfa dirham benn dërëm rek raw na téeméeri junniy dërëm saxaaba yi na ko ah yu mu yàlla yónni téeméeri junniy dërëm nan la ko benn dërëm rawee mu ne waaw benn waay day am alal ju bare bare bari jël ca téeméeri junni joxe du yëngal sax alalam mu am benn waay boo xam ne ñaari dërëm la ko yàlla dénk mu jël dërëm ba sarxe ko ci yàlla tax kookee en pourcentage sarxe ne genn wàllu alalam te mën na am kee sarxe téeméeri junni dërëm peut-être un centième alalam la sarxe loolu tax yonent bi alayhi salaam wax loolu daanuñu bégal it ne ittaqu naara walaw bi shiqi tamra na ngeen di ut benn barrage seen digganteeg sawara nuñ koy defee yomu yàlla yónni mu ne mooy ci génn ay sarax même bu dee amuñu lu ñu saraxe nag mu ne même benn xottu tàndarma benn tàndarma nga xar ko ñaar genn wàll ga sarxe ko ci yàlla tax loolee dana la tàbbal aljanna mbokk julit même bu dee ne amuloo asma bint abu bakar radiallahu anha ñëw na ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam ay yàlla yónni man kan maa ngi nii góoruma yettu ma awma dara sama alal yi jëkkër rek moo fi nekk muy zubayr ibn al awaam waaw ndax su ma jëlee ci alal ji sarxe yàlla dana ma bindal tuyaaba yonent bi ne ko aha kay yàlla dana la bindal tuyaaba dana bindal sa boroom kër tuyaaba yonent bi alayhi salaam ne bépp jigéen boo xam ne sarxe nga ci sa alalu jëkkër loo xam ne àndul ak yàq yàlla bindal ko tuyaaba bindal jëkkëram tuyaaba ca nooy xamee ne yàq am na ci am yàq amu ci muy loo xam ne bu ko sa jëkkër yëgoon du ko naqari bu fi nekkoon nga def ko du ko naqari même bu dee nekk fi boo ko defee da nga ci am tuyaaba yonent bi alayhi salaam mu ne gardien it noonu la mel waa ji jël nañ jël nañ ci benn place nga nekk fa di jaay masalan benn yelwaankan ñëw nga yëkkati cent franc jox ko loolee nga xam ne même bu fi borom bitig bi nekkoon boo ko defee du ko naqari da nga am tuyaaba borom bitig bi am tuyaaba looloo tax loolu yonent bi alayhi salaam da daan ñaax société bi yépp ñuy sarxe mu naan daana dem ci bisu it ci jigéen ñi ay yéen jigéen ñi bari leen lu ngeen di sarxe man day gis naa yéen a ëpp sawara yéen a ëpp sawara bari leen lu ngeen di sarxe ca loolu it benn jigéen jóg ne na ko yum yàlla yónni lu tax ñu ëpp sawara mu ne yéen da ngeen di suul njekk góor da leen di defal teraanga ay ati at bis nga xëy xëy ne ko tekki woo dara jëriñoo ma dara gannaaw ba da ngeen a bari lu ngeen di rëbb wax ju ñaaw seen gémmiñ kon loolee la koy mën a far mooy bari leen lu ngeen di sarxe loolu yi da ngay gis ne jigéeni sahaaba yi amuñu woon waaye dañ daan tekki seeni jaaroog seeni lam ak seen lu ñu mën a am sarxe ko ci yàlla tax loolu mbokk nañu góor góorlu bu ñu bëggee ngërëmal yàlla subhanahu wa taala gis nañu ne suñu demee yowmal qiyaama suñu borom subhanahu wa taala da ngay gis ne dana woote benn liste juróom-ñaari nit bokk na ci ñooñu mooy ana ko mas a génne benn sarax ba mu koy génne yàlla rek moo tax mu joxe ko ca kenn yëgu ko ña ca bokk ñépp daal di jóg ñu ne kaay leen ngeen kerlu ci keru arsh rahman ba baa ñuy atte jaami yàlla yi yal na yàlla boole ñu ci ñooñe loolee mbokk da ngay gis ne doomu aadama dana def ay bakkaar ba yàlla mere ko waaye sunu yonente alayhi salaatu wasalaam nee na li nga xam ne mooy sarax bu sell dana far li nga xam ne moom mooy ay bakkaar di far merum yàlla ni nga xamee ne am na taal buy tàkk nga dem jël sa siwo ndox xëpp ko ci noonee la sarax di fare bàkkaar noonu lay fare mer bu yàlla mere woon ab jaamam looloo tax yonent bi alayhi salaam yemul woon ci di ko wax da ko daan dund ci kanamu sahaaba yi amul ku ko masalaat mu ne déedéet amul lum masa yor lu dul ne tasaare na ko jox ko jaami yàlla yi ca jamono joojee léeg-léeg kër ga sax dana doon kër goo xam ne amul lu fay tàkk waaye mu joxe misaal boo xamee ne nii kenn xalaatul woon dab ko ci sahaaba yi waaye xalifaam bu tedd ba aboubacarin sadiq nañ déglu omar ibn alxataab radiallahu anhu aboubacar omar mu ne yonent bi dafa ne woon ay gaa yi kaay leen ngeen génn sarax ngiree loo xam ne dañ koy dimbilee masaakiine yi dimbilee ko amal islam omar ibnul xataab ne fu ñu masa woote sarax aboubacar jiituma waaye tey moom du ma jiitu mbokk sahabatul kiram loolu lañ daan concours mooy concours ci ngërëmal yàlla paa ku gën a rafet kër paa ku gën a rafet waruwaay paa ku gën a dajal lu mu am waaye concours ci ngërëmal yàlla subhanahu wa taala Omar dem indi lu rëy rëy rëy ci alal yeneen ci bàyyi sam na ko ah Omar li bari na di loo bàyyeel sa kër mu ne yow mi yàlla yónni bàyyee naa leen lu toll nii ay xaaj na alalam joxe ko ci yàlla tax la ca des mu bàyyi fa waaye mu ne yàggul tuuti Aboubacar ñëw indi alal joo xam ne yéeme na yeneen ci bàyyi sam na ko mu Aboubacar yow li bari na loo bàyyee sa kër mu ne bàyyi naa fa yàlla ak yeneen ci yàlla ca mooy lam amoon indi na ko joxe ko ci yàlla tax lu tax mooy yonent bi moo woote jamonoy jafe-jafe mbokk ki nga xamee ni nii mooy Usman ibnu Affan nekkoon na koo xam ne ku yàlla yaataloon alalam waaye lam ci joxe ci ay misaal dañ ne jënd na àjjana ay yoonu yoonu yoon ci la nga xam ne ni moom mooy alalam jooje loolee da ngay gis ne wuxuma lam defoon ca jaysul usra usra mooy ba yonent bi wootee Tabuuk muy jamono ju jafe lool Ousmane ne danaa indi téeméeri gileem ak seen i teg yonent bi kabbar kontaan ñaaxaat nit ñi Ousmane ne danaa indi beneen téeméer ba indi ñetti téeméeri gileem boole ko junni dinaar ci jamono jooju nga xam ne ñaar fukki dinaar ku ko am war ngaa génne zakat waaye yemul foofu mas na benn xiif am Madina Ousmane dem Syrie jënd fa benn caravane njëgu gu bari bi mu ñëwee commerçant yi wër ko mu ne daal li ma koy jaayee. ñaata ngeen fay gars yi naa mën nañu fay mooy li nga joxe cent pour cent mooy boo jënde woon cent franc ñu jënd ko ci yow deux cent Ousmane ne xeeb na loolu gars yi dem dem ba trois cent pour cent nangu nañ kilo boo jëndee cent franc ñu jënd ko ci yow trois cent mu ne xeeb na loolu ñu ne ko loo bëgg nag mu ne ngeen fay ma mille pour cent te mooy cent bu ma jënd woon ngeen ngeen fay ma mille ñu ne ko waaye da nga yow nangu naroowu ñu jaay loolu kan moo ko man mu ne su ngeen ko mënul gis naa ko ko man yàlla nee na su ngeen ma joxee benn ma fay leen fukk daa di ne woo leen fuqaraaw yi ñu séddale leen alal jooju mbokk loolu mooy fikra bi nga xamee ne tey sunu borom alal yi dem almadi jënd fa pàkk un milliard financé ci lu dul jeex ci meuble yoo xam ne lépp mbali ci tubaab bi la ak ne xool ñu am xel boobu dugg ci àll bi xool dëkk yi amul teen dugg ci àll bi xool la nga xamee ne nii mooy jafe-jafe fa nekk ci dispensaire ci ay ambulance ñu fexe leen ko fajal wallahi loolu da ngay gis amul lenn lu ko gën a nekk bànneelu bànneexu xol benn sahaaba mi ngi ni di abu talhat al ansaari sunu borom dani lan tanaalu l birra xatta tunfiqu mimma tuhibbun du ngeen am sama ngërëm du ngeen am njekk jot njekk lu dul da ngeen di joxe li ngeen gën a bëgg mu ñëw ci yonent bi alayhi salaam na ko maa ngi lay seedeel ne li ma yàlla dénk ci alal sama tool bii nekk ci wetu jumaa bi moom laa ci gën a bëgg muy bay ruxaa di tool bu bëri woon ay tàndarma am ndox mu neex yonent bi daana fa dem di féexlu di naan ndox ma mu ne ko tool bi yow mi yàlla yónni yónni jëlal jox naa ko yàlla gis ngeen yonent bi alayhi salaam yi mu lool ne ko ah li day lu am solo la waaye wool say bokk jege ñaale nga séddale leen ko tey bu doon sunu sëriñu caami tey danañ ko jërëjëf boole ko ci téeméeri tool yi mu am waaye mu ne ko jël ko nga jox ko sa mbokk jege ñaale yi loole itamit moo daroon abu dahdah ba sama borom wàccee ne man yuqridu llaha qardan xasana ana kan mooy lebal yàlla bor bu baax abu dahdah amoon benn tool boo xam ne amoon na six cent tàndarma te ku xam valeuru tàndarma ci arab juróom benn téeméeri tàndarma fa la dëkkoon moom njabootam mu jóge ci yeneen bi ñëw ci soxna si daa dina ko umu dahdah kaa ñu tuxu mu ne ko lu xew mu ne ko sama tool bi dama koo leble mu ne ko sa tool bi kan moo ko mën a leb ku lay leb ba di la fay lu toll nii mu ne koy leble naa ko de yàlla bëgg ku ko lebel lebel naa ko yàlla ndaw sa melul comme sunu jigéen ñi tey mu ne ko lebel nga ko ko mën a fay ñu daal di génn seen bagage mu daal di koy jox ngir yàlla moom la yonent bi alei salaam doon wax ne cey bu ngeen xamoon lay xaar abi dox dox ci ay tàndarma ci biir ajjana da ngeen doon loo xam ne ñu ci yéemu lañu mbokk ñi ñooy sahabatul kiram nga xam ne dañoo royul seen yonent xamoon ne nii ñu taxawee ci julli noonu la ñu war a taxawee seen alal ñu daal di koy bokk ak seen i mbokk waaye bokk ko ak fuqara ak masakin yi nga xam ne nii ñoom ñooy ñi leen waroon loolu moo tax ba ki nga xam ne moom la ñuy tuddee jàkka ji di Saad ibnu Abi Waqaas dem na bis bi wër Kaaba ga daa di ne allahuma qinni shuha nafsi di wax rek yàlla yàlla na mu musal ci nay yàlla yàlla mu musal ci nay gaa yi mu àndal na ko waaw yow xanaa amoo leneen loo ñaan mu ne ndax gis ngeen lu gën a baax yàlla musal la ci nay sunu borom nee na wa man yuuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ku yàlla musal ba nayoo rek yow taxe nga nay googu nag mooy lan mooy nayoo ci joxe ci yoonu yàlla ci yàlla tax yal na yàlla boole ñu ci ñuy joxe ca yàlla rek tax yal na yàlla wërsëgal ñu ngërëmam gënal ñu sunu alal yal na yàlla wërsëgal ñu waajal alaxira gënal ñu àdduna wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ibadallah abshir ayuha almunfiq ببشارة من فوق السبع سماوات قال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا ينفقون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا تكن ممن قال الله عنهم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أيين بكو جلدي نيجي يسال سانت سونو بروم ñaan ko mu julli sunu yenente ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay yow mi yàlla déppale nga jël sa alal di ko joxe ci yoonu yàlla ñi ngi lay jottali mbég mu jóge ca kaw asamaan ya sunu borom yàlla mu ne ñi nga xam ne ñoo ngi joxe seeni alal ca la ñu joxe duñ ca teftale benn loo xam ne lor la wala puukarewu ñeel nañ ko jox yàlla rek taxoon ñuy def borom bi mu ne laa xawfun alayhim danaa leen dalal ci lii nar a xew alaxira duñ ca am tiit wala hum yahzanuun suñuy bàyyi àdduna it dana dalal seen xel ci seen njaboot ci seen gannaaw ne bu leen ci tiit loolee na nga bokk ci ñooñu moytul bokk ci ñi nga xam ne sunu borom nee na mu ndax yéen mooy ñi may woo kaay leen dépense ci yoonu yàlla mu am ci yéen ñoo xam ne dañuy nay xanaa xamu ne boo nayee yow nayoo lu dul ci sa kaw bopp rek yàlla ko woom la la te yéen yéene ñuy aajowoo te yàlla nee na lu ngeen ma jox ma ma ma dolli leen lu ko gën kon kay ku nay yaa ngi nay sa bopp donte na ñooñu sax am na ñu leen gën a bon mooy allazina yabxaluuna wa yaamuruuna naasa bil buxlu am na ñoo xam ne du ñu joxe ci nangu wu ñu ko joxe bu ñu gisee mbokk bi def lu baax ñu ne ko nit ñi boo leen toppee dañ lay daaneel dañ lay kaza dañ lay kaza loolee mbokk gi mu ñu seytaane la su ko defee nañ góorgóorlu waat di sarxee ca yàlla tax sunu mbokk jigéen ñi nit ñu fonke ndawtal ay waay ak a neexoon ñu fonke ko sarax da ngay gis koo xam ne boo ko laajoon waaw at mii génn ñaata ndawtal nga ci génne mën na am dem na ba cinquante mille wala cent mille waaw ñaata nga ci saraxe saraxoon naa diw juróomi dërëm kee ñaar dërëm kee nangam kee nangam mbokk loolu taxul ñuy wax sarax rawatina yéen ñi nga xam ne mooy jeunes yi tubaab bi nga xam ne moo jiite àdduna bi tey xamul luy sarax tey li ñu jàpp mooy boo amee cinq cent mille am nga problème un million sooy fayee ko un million am nga problème deux millions ku nekk yaa ngi jàmbat waaye mbokk bu mel noonu lii la yàlla wërsëgal ak as néew bokkul ci ñuy génn zakat di ko joxe même boo ci bokkul xoolal sa mbokk jegeñaale yi xoolal sa mbokk dëkkandoo yi la ngay am ci salaire kas néew nga xool borom kër boo xam ne wóor na la loxoom jotul gannaawam nga ñëw buux ko cinq mille francs wallahi bu la ñaanalee ñaan googu mën na defar sa adduna defar sa àllaaxira gis koo xam ne nii soxna la su ñàkk nga jël dara jox ko jël saako ceeb yóbbul ko jël goro su sukkar jox ko loolee yàqul sa salaire loolee da koy barkeel da koy ful góorgóorlu leen bàyyi ci loolu bu baax joxe sarax day laabal sa alal joxe sarax da koy barkeel joxe sarax day tax masaakin yi ñaanal la bal joxe sarax day tax fitna jóge ci dëkk bi yonent bi alayhi salaam ne woon moytu leen nay li alagoon gaa yu jëkk ya mooy bañ nayee moo leen yóbbu fitna dugg seen biir boo demoon tey polyclinique nga fekk caga ji inscrit foofu quatre-vingt-dix pour cent ci ñoom lu ñuy wax mooy sama jëkkër dafa dee uma ku ma yor kaza wa kaza loolee ñu nga dëkk ak ay borom alal yoo xam ne bu doon ñu ngi leen di nemmeeku du leen dimbali mën naam duñ dem ca cagata googu bari na ay jeunes yoo xam ne ñu ngi agressé lu tax mooy seen baay dee na liggéeyuñu amuñu lu ñu dekkee amuñu dara lu ñuy xalaat mooy dem bokk ci agresseurs yi doonte ne layaluma leen waaye damay wax ne bañ a jox fuqaraaw yi ak masakin yi seen aq mën na jur loolee su ko defee ñu góorgóorlu xam ne génne sarax boobu dara gunu cee gaaw ci dàq ay musiba ay bala dara gunu cee gaaw ci faj aji feebar waaye moytul tariyaax digal la ko nga dem ci tariyaax bi mu ne la jox ma dix mille francs boo demee ci imam nga sarax ko juróom-ñaari guro ak juróom-ñaari kayit yu weex wala nga dem ci fële nga jël benn nen nga jox kaza wa kaza loolee mbokk sarax bu la tariyaax digal bakkaar dong nga cey jëlee booy bëggee sarxe da ngay sarxe ci yàlla tax ay yàlla sama doom ji feebar ay yàlla sama yaay ji feebar ay yàlla kaza wa kaza nga daal di jël sa alal muy xaalis wala sukkar wala ceeb lu am solo jox ko sa dëkkandoo bu sonn ba pare nag ñaan yàlla mu fajal la sa soxla lii mooy tawassul ila allah ci la nga xam ne mooy sarax mais pas dem ci tariix yi mu lay digal ko lu mën a doon na ngeen góorgóorlu mbokk jurit sunu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne li ma leen wër sëgal góorgóorlu leen ci ndax dee day bette quatre-vingt-dix pour cent ci doomu aadama yi bu ñuy dee daañ ñaan yàlla mayaat ma mu dundaat une heure de temps yàlla am naa alal may mu dundaat une heure de temps ngir rek ma def ca lu baax joxe ay tegtal sunu borom mu ne déedéet loolu wax la jooy wax rek waaye c'est fini léegi àllaaxira rek nga jëm kon nañ góorgóorlu sa jamono bi ñuy man dee ma joxe sunu kemtalal kàttan xamal na it sunu borom yàlla wërsëgal na la benn buntu mooy yow mi yàlla dénk alal del def lu baax waaye bul fàtte li ñuy tuddee testament lan mooy testament mooy al wasiya sunu borom mu ne min baadi wasiyatin aw dayn sa alal ji la yàlla may bindal waxal wala nga seedaloo comme mën a doon ne bis bu ma deeyee day bàyyi naa nangam ci alal nañ ma ci joxal diw nangam nañ ma ci defal nangam loolee tant que paasewul sa ceeru alal buñ la ko defalee tuyaaba ja dana la fekk si buñ la ko defalul tuyaaba ja dana la fekk si maadaama yéene woon nga ko ba pare nga daal di koy wax loolee mbokk mooy ñaaxaate bu ñuy ñaax ci la nga xam ne mooy wàllu sarax ca wallahi lañ ca wax néew na lool lool par rapport ak la ca alxuraan ak sunna wax la nga xam ne moom la ñuy terminer sunu xutba rek mooy fàttali ndaw ñi ne tey mooy ajjuma juróomi fan ci weeru safar moom la sunu maam bi di tudde digg gàmm amma la nga xamee ne mooy catholique yi am na benn calendrier bu ñuy bàyyi calendrier bi yàlla tëraloon ñeel yahud ya ñeel nasaraan ya ñeel ibrahima ak muusa depuis mu bind asamaan ak suuf nee nañ ko fa ñukk créer seen calendrier dul jeex biñ ci mujj a créer mooy calendrier bi di grégoire xaw ma nangam mooy calendrier grégorien nga xam ne ñu ngi ko créé woon au dix-septième siècle daa di ne at mi mi ngi commencé premier janvier mi ngi jeex 31 décembre yóbbaale ci jullit ñu bari ba ay ustaas yi wax ci télé bi sax ak rajo bi da ngay dégg ñu naan waaw jeexitalu at bi kaza jeexitalu at bi kaza mbokk jeexitalu at boobu sunu borom mu ne ziyaadatun fil kufr la mooy dolleeku ci kéeféer la yàlla wàcce wu ci lay loolee na ngeen ko jàpp bu leen ci organiser dara jàpp leen na dara xewul buñ bu ñu yahudi ak nasaraan yi ëpp ful la soo demoon seeni dëkk korite ak tabaski day mel na dara xewul su ko defee yow it 31 décembre yema la ko moog la 15 juillet yem ci yow benn benn la loolee mooy la nga xam ne moom la ñu mujj a ñaax suñu bopp bu leen leen félicité daganul ngay félicité kenn ci bonne année sunu année tey am na weer ak juróomi fan tey année bee anu yéeféer la daganul nga ci wax kenn dama lay félicité ci bonne année loolee ñu bàyyi ci xel bu baax yal na yàlla delloo ñu ila siraatul mustaqim yal na yàlla xamal ñu suñu diine wërsëgal ñu dund ko yal nañu yàlla wërsëgal lu dagan lu teey wërsëgal ñu def ko place bu mu gërëm tam nangul ñu ko yal na yàlla musal ñu ci lépp luy fitna yi àdduna ak fitna yi alaxira yal na yàlla subhanahu wa taala may ñu mujj gu rafet yal na defal ñu jàmm ci suñu réew bépp fitna boo xam ne mi ngi fi wala ñu ngi koy yaakaar yal na yàlla teggil ñu ko remplacer ñu ko li nga xam ne mooy aafiya ak jàppante ak bëggante te xam ne ñun ay julliti neen lañu amul lenn lu war a teqale suñu diggante يالنا يالا دفل عافيه في الدنيا والاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين